sant kon nga xam tawfiq wadi xaadawul ilamu xad abdiyaaliya maaloo jaamu Cheikh Babacar day saaf jërë ngeen jëf mbokku téléspectateur yi nga xam ni saa su ne itam dañuy ànd ak yéen ci seen jotaay bi nga xam ni day dox ci li nga xam ne ci wàllum wàllum pajum cosaan ak aada waaye itam rawatina ci wàllum euh, lasraar kook itam euh, muy jëmm ji nga xamante ni dootuñu leen ko présenté di euh, sëriñ Babacar Diop tabarkàlla yaakaar naa ci taxawaayam saa su ne itam ci wàllu askan wi rawatina nag seen wàllum wér-gu-yaram ci wàllum pajum cosaan ak aada duñ ci sori dañ koy bàyyi kàddu gu mu daal di nuyoo bu ko defee rek ñu daal di delluwaat ci jotaay bi mbokk nag dina fàtte nag muy spécial jotaay bu am solo ñu ne les 6 minutes de sëriñ Babacar Diop sëriñ Babacar salaamualeykum. waaleykum salaam wa rahmatullah leen nuyu. di wax aouzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim allahumma salli ala sayyidina muhammadin wala ali wa sahbihi wa sallim jërëjëf sëñ Babacar Diop jërëjëf ci nuyoo yu sell yu tedd yi lay tabarkàlla sëñ Babacar fu ñuy jëmee rek directement ndax ñu bëri yaakaar naa moo leen gën a yitteel ñu xamee la ko muy wàllu pajum cosaan ak aada tam ñu bëri xam la ko waaye lasaraar bi tam da làqale la ci ginnaaw di ci liggéey lu am solo ñu ñëw les six minutes de Serigne Babacar Diop muy concept bu am solo euh, tey dañuy njëkkee ci ndeyu jàngoro yi nga euh, moom boo demee ba xamatoo foo jëm da ngay dellu fa nga jóge woo jóge euh, ndoxum siti ndoxum siti nag ñi naan toppam siti ñaar yi nga xam ne bëgg nañ nga décortiquer ñu ko manifestation yi ndax baax na ci saa su ne ndax nag dañuy dem ci période yoo xam ne saa su ne dafay changer ndoxum siti toppam siti bëggoon nañ nga décortiquer waaw xam nga ndoxum siti ak toppum sët benn la def ci am loo xam ne ci maam aadama la ba suñ ba suñu jonne àll tey dañ ne pom ba mu lekkoon gaaf bi mu defoon ci moom ba génn ko àjjana moo topp deret moo waral siti doomu aadama yëpp ko am tubaab da koy am naar da koy am chinois da koy am africain da koy am mboolem xeet yëpp da koy am pël da koy am séeré da koy am joolaa da koy am njaago da koy am mankañ da koy am bambara yaa ngi dégg wax te defee nag city luy nekk ci deretu nit la waaye dafa am ñetti façon city yu bokkul daf ci am city boo xam ne ci deru nit ki la nekk naan dermatose boo xam ne ci derm la nekk der city boobu nag ñu bëri boo waxee city seen xel ci loolu lay dem lu mel ni ay heure wala lu mel ni picc ak démé non te fekk ne site bi gëna dangereux mom ci biir nit ki lay nekk ndax am site bo xamné ci ci der lay nekk am site bo xamné ci direct lay nekk am site bo xamné ci xalé lay nekk d'accord ñett yoy ñoo d'accord mais sëñ Babacar fofu ci point bobu ñu bari tam dañuy wax ni site yi dafa am benn phénomène bo xam fofu dañ koy gis ci nit ñi mais c'est très rare amna lo xamanteni da nga gis nit ki ñu ne la dafa dafa dafa xam xam léeg-léeg mu génni loolu ci ci ci ay si ay signe cité la bokk wala loolu c'est à part waaw xam moom bokkul signe cité moom c'est à part dafay am ñoo xam ne parfois su suñu demee foo xam ne client dafa changé wala changé ndox sax mu feeñ seen yaram loolu allergie lay loolu allergie lañ koy mën a tuddee d'accord tabarkal sëñ Babacar mu mel ni tam yaa ngi wax mbir mi lan mooy tax li koy gën a joxe cause yi après tamit fo gisee cause tamit bu fekkee solution am na dañ koy indi li nga xamante ni nag lan moo koy joxe lu ci bari bëri cité dëgg la ko kii dox ñu bari dañ naan am nañ ko mais parfois da ngay gis ñoo xam ne dañuy utiliser loo xam ne da koy gën a manifester maanaam mooy allergie bi ngay wax mu dem ba fës nit ki xam ni kan ndoxum cité ci moom. xam nga dafa am famille yoo xam ne ñoom cité moom dafa fës si ñoom famille bu nekk day am feebar boo xam ne mu gën nekk héréditaire ci moom. am na famille yoo xam ne duñu màggataale bët am famille yoo xam ne jabar dafa leen di yàpp am famille yoo xam ne euh, feebaru hernie daf leen di yàpp mm-hmm. am ñoo xam ne feebaru hémorroïde daf leen di yàpp mm-hmm. yaa ngi dee wax ji mm-hmm. léegi nag moo tax am na ñoo xam ne du sax lekk bi ñuy lekk waaye héritage la su ñoom mais en dehors affaire affaire ndono euh, lu mel ni soow piir soow piir day yeesiti euh, lu mel ni jën yu ñuul day yeesiti lu mel ni gerte gerte bu ñorul bi gerte kemb kemb day yeesiti eh, yi yeesiti moom même yàpp yàpp bëy maanaam boo gisee yàpp bëy nga xam ñu bëri di wax day tànga yaram parce que dafay yeesiti moo tax hmm, waaw eh, ba tey itam mboolem feebar yi nit ki fi dugg nit ki soit ci li muy noyyi la wala li muy lekk feebar moom la ngay nawee wala la ngay wala loo xam ne ci pëy lay jaaree ci pëy maanaam nga seeg jigéen am ko wala góor seeg jigéen am ko d'accord waaw d'accord euh, sëñ Babacar euh, ginnaaw si euh, ñu ngi dugg nag ci li nga xamante ni wax nañ tuuti ci wàllu manifestation yi yu demee li solution lu ñu gis ni mu ngi fi hmm. léegi solution bi nga xamante ni tey mën nañu taxaw nii kat lii mais est-ce que dinay facile la plupart les solution day am mais li ngi tere nit ñi pour ñu mën a dànk maanaam li nga xam ne tawat bi wala ñu faj ko loolu tamit dañuy ñëw di ko composé par exemple ak traitement parce que mhm. solution bi xam nañ solution tax xam nañu solution baa ngi si moo tax tey ñu am ak yow jotaay euh, tey euh, solution bi nga xam ne tey am nañ ko euh, tey ana tey li nga xam ne tey koy traité sa wàllu loolu faw nga tere ko lii ñe ñam yi ñam yi kat dañ ko war a teg ci a teg ci suuf waaw benn mooy fexe fonk naan lu bëri naan lu bëri d'accord moytandiku Euh, ñam yu am graisse trop wala ñam yu bari suukar trop euh, ba pare nit ki buy lekk na xiif door a lekk te buy lekk tam bu mu lekk ba ba lu muy lekk sonal ko am na xam fi dana lekk ba la ñuy lekk dana leen sonal ba mhm. dañ naan ngéej maanaam mu génn mu maanaam génn ko loolu yëpp daf koy daf koy daf koy waral mhm. ko defee euh, ki bëgg a faju si tam il faut maanaam ñett yi ñu xam ñun ban la ci ba pare doo ko mën a jox garab siti bi nga xam ne ci der la nekk expliqué naa ko boobu boo xoolee moo gën a woyof moo ci gën a woyof yaa ngi di wax mhm. bi nekk ci direct boobu mooy waral nit ki yaram di tàng ay bëtam di lëndam muy gaaw a fàtte mhm. mooy waral tam euh, mën na dem sax ba leel loo ko am ñoo xam day dem ba fulu seen bët yi ba nga xam ne seen gis dootul neex dañuy yaakaar sax dañu meew wala seen bët di xasan wala seen bët di tàng seen suuf tànk di tàng mhm. di leen taayalloo day egg sax foo xam ne yaakaar nañ leen jabar ak hmm. siti moom moo koy def moo koy def waaw euh, ba tey itam euh, dem ba nga xam ne daf leen di jàpp ba bu dee jigéen lañ du ñu mënati jàmm ah, jàpp ëmb ndax tàngoor yi bu dee góor la itam du ñu mën a jàpp euh, kii du ñu mën a sëy ba seen mën yu jàpp parce tàngoor bi yaram bi dégagé mooy yàq lépp loo xam ne appareil la bu nekk ci doomu aadama bi léegi ñetteelu cité bi mooy cité bi nga xam ne seex lay nekk moom bëri na ñoo xam ne ñu ngi jàmbat arthrose wala di jàmbat euh, étrite euh, arthrite wala di jàmbat euh, mu tuddati hmm, sedd bi. Mm-hmm. rhumatisme mm-hmm. waaw. wala sax fu ñu toll dem ay courbature parfois ñu am seen om neewi ba ñu yaakaar na sax xanaa dañoo dëgg liggéey wala parfois seen cheville bi neewi di mm-hmm. metti wala parfois mu jàpp seen mbagg yi. parfois mu jàpp seen ndigg am na ñoo xam ne siti siti moo leen di jàpp ba maanaam seen ndigg li di metti ba toog duñ ko mën duñ mën a sëy duñ mën a dox duñ mën dara wala bu ñu jógee bu ñu entraîné ay ñaari fan ñett rek mu daana daat leen fekk ne siti moo moo leen jàpp ba jàpp seen seen ndigg muy metti am ñoo xam ne dafa leen di def euh, loos bi metti mm-hmm. moom tubaab nu mu koy waxee sax di waaw waa ay courbature ak yooyu mel noonu mm-hmm. am ñoo xam ne daf leen di jàpp ba nga xam ne day yóbbu seen xel ñu fàtte ñu gaaw fàtte parce que tàngaay bi bi seen yaram di di dégager mm-hmm. mooy dem ba daf leen di dafa leen di traumatiser ba dañuy ma dañuy gaaw fàtte mm-hmm. mën nañoo teg fi dara léegi bu ñu jógee bu ñuy tàggoo bàyyi ko fekk cité euh, la sëñ Babacar mel ni sax daanaka xaawaabal nañu bu ñu waxee les six minutes de sëñ Babacar Diop yaakaar naa sax li ci des xëy na ku mën a wootee euh, am na yenn manifestation yi euh, sëñ Babacar ci simili bu gàtt rek euh, ci kàddu bu gàtt je veux dire bu ko defee avant ñuy tëj parenthèse boobu daanaka tey ci wàllu consultation à distance tey bu ñu la woowee rek nit bu la waxee yenn manifestation ndax mën nga consulter à distance à travers te mu bañ laa gis. Mm, waaw ñun boo xoolee ni ñu jëflanteel ba ci Sénégal fi mu bëri na ñu nekk foo xam ne bokkul Dakar. jàppandi mën a ñëw ak ni mu xatee dama leen koy jégal dama leen naan mën naa defal consultation en ligne bu ko defee soo xamee sa bu dee euh, jàppandi na ci yow bu ko defee euh, dañ lay garab yi xam nga tey ki ki dëkk euh, Kédougou bëgg di faju mm-hmm. mënul heure bu amee rendez-vous jógee Kédougou ñëw day métti non la demee. tabarka defee consultation en ligne lañ lay defal. mu ngi noonu mbokk yi euh, mu ngi noonu loolu moo nekkoon nag euh, seen euh, si minute de Serigne Babacar Diop ndax xaabaabal parce que du ñàkk parce que li ñu war a décortiquer rek daanaka ci ndoxum cité mën nañu wax fii ba suba te du jeex te yaakaar naa Serigne bi ni ma ko waxee leer na di leen fàtt rek adresse bi moo ngi rond point daanaka rond point case ba daanaka rek yaa ngi ci cabinet Serigne Babacar Diop numéro téléphone baa ngi noonu ci barre écran bi 77 755 24 24 wala 77 864 25 89 sant kon nga xam tawfiq wadi xaadawul ilamu xad abdiyaliya maaloo jaamu